waaw maa il fay Sadibou di nuyu internetu Dakar Sénégal wala ci Adunabi. bi maa di secrétariat national réew mi yeneen a exécutif bu il 23 juin dafa nek euh, bis bo xamné dafa marqué ku man sama génération Sénégal dafa am génération 62 am génération 68 génération 88 dafa am ay combat ay bis yu mag yoo xam ne ay génération mën nañ ko mais ñun suñu génération ñun buñ koy wax 23 juin la ñuy xalaat 23 juin 9 ans après un échec lay wax échec boo xamante ni mën naa ko wax ci deux angles bi ci jiitu la trahison de nos aînés la trahison de ces aînés yi nga xamné nous ñun ak ñom buntu assemblée nationale ñu jiital ñu ñu taxaw di ñakante ak tak der yi ma mën lim rek ndax amna na xamné tay ne nañ aduna or ma orma mayul ma yul di tuddu mais ku ci le président Macky Sall bi nga xamné président Sénégal la première institution du pays ku ci le président de l'Assemblée nationale l'actuel président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass mu yoroon xeer taxaw ci buntu assemblée bi ñun ñëpp ñu ni député yi yéen doo leen député Ablaye Wade député askan bi ngeen yéen da ngeen a war a def li askan bi bëgg sinon boo leen voté car bloquant bi askan bi dina dugg génnee leen fa jëlaat moom kàddoom bi mu leen joxoon ñooñu ñu nekkaloon di xeexal ñooñu lañ jël dugal leen ci biir tey man damay xalaat. ku Diop mi mouvance bi M23 moo ko doon ndax tey Mamadou Diop bu dekki woon ñu ni Moustapha Niass président assemblée nationale bi nga député day toog fëgg ni man député Macky Sall laa député askan man ma les yeux fermés ndax le président Mamadou Diop tay bu dekki won ñu ni ko Mamadou ndax xam nga ni assemblée nationale bi nga xamanteni ni Moustapha Niass moko jité fa la ñuy wax tay opposition du am sax groupe parlementaire bu ko jémé am ñu député buñ ko jémé am ñu xoxatal député menacé ko ci créer Nous ko qui am ñettelu at bi mu jaral leen ñu jële groupe parlementaire ci 10 yobbu ko ci 15 loolu pour teunk démocratie ku mumu Mamadou Diop ni ko tay Macky Sall mi président bi mi ngi fexé ak Benno bok yakar ba opposition du am sax groupe parlementaire pour meuna wax ci assemblée bi yaakaar naa Mamadou Diop ku ko yeewoon tay du ko gëm ku yeewoon Mamadou Diop ni ko Mamadou ba xam nga assemblée bi ñu démon Moustapha Ñar yo Moustapha Niass yor xeer Moustapha Niass bobu tay moy ànd ak ay député ñuy def vote sans débat ni ko loi bu tudd parrainage boo xam ni président bi day tànn ña ko saf ñu bokk ci élection yi ñi ko neexul du ñu bokk ci assemblée bi Moustapha Niass jiite la bokk Macky Sall di diggal loolu ñoom ñu koy def jour parrainage boobu ñu jàpp tous les leaders de l'opposition tëj ci kaso bi ba mu dakaar ñoom ñu voté loi bi ku yeewoon Mamadou Diop tey ni ko Mamadou mbaa xam nga ni assemblée bii ñu installé manam liñuy dundu ci assemblée bi moy lever immunité parlementaire député dindi mbaranu kirla yu député manam ci senghor ci djouf 20 ans ci ablaye 12 ans a presque 32 ans boko bolé li assemblée bi dindi ci mbaranu yu ci 32 ans presque mosul am ci Sénégal dindi nañ bu Khalifa Sall immunité parlementaire pour djébal ko Macky Sall mu tëj ko kasso dindi nañ bu Barthélémy Diaz dindi nañ bu Ousmane Ngom dindi bu ablay balde dindi bu Omar sar yakarna ku yeewoon Mamadou Diop yé Fodé Ndiaye ni Mamadou mais falaa jëm ni parce que dama lay wax ni ku yeewoon mu mu du Diop tamit ni ko Ousmane Ngom ma doon ministre de l'intérieur jamono jooju mooy xaritu tey Macky Sall ñu bokk ñoom ñaar coalition ku yeewoon Mamadou jóob ni ko commissaire Arona si Jacques Bauer mi joxewoon ndigal ñu taal dragon bi mu jaar sa kaw boom la nga faatu moom promotion la am ku yeewoon Fodé Ndiaye ni ko ñooñu la yónni woon sur le terrain ba nga faatu ku ko ye ku leen yeewoon tey danañ am gàcce loolu lu muy résumé mooy la trahison de nos aînés dama ni ñaari enseignement lañ ci war a tirer mooy la trahison de nos aînés et l'inexpérience de la jeunesse nous qui étions d'or nous qui nous sommes battus ñun ñi nga xamante ni ñoo. bàyyi combat bi ba dara bul fàtte ni euh, président Macky Sall ñu mel ni mouvement Y'en a ñu ngi woon au front aussi société civile ak ñëpp ñoo xamante ni tey d'accord wuñu euh, loolu nga xamante ni ñu ngi ko doon ruma daal ci suuf muy ticket euh, prési vice président boobu noonu tey xeex bi daanaka ñooñu noonu tey boo xoolee li nga xamante ni bu ñu pour bañ a wax ni rek carrément que. Euh, est-ce que une expérience lañ wara a wax concrètement parce que ñoñu ñu ngi ànd ak ay magum jëm lañ. xam nga non xam nga affaire yi xam nga une expérience dama séparer deux choses dafa am ñoo xam ni ce sont nos aînés yu ñu trompé ñun trahir ñu moom laa njëkkee ma ne la y a une partie nag de la jeunesse boo xam ni moo génn mëne le combat les jeunes ñoo dee les jeunes ñoo ñàkk seen bakka neuf morts yi ci jeunes yi la Fodé Ndiaye jeune la. Mamadou Diop jeune ñeneen ñi lañu autour de ñoo dama ni nous nous avons confondu évolution et révolution nous nous avions posé une étape ci benn processus ñun dañu am évolution yaakaar ni nous avons fait une révolution nous nous n'avons pas sécurisé ñun révolution moo objectif bi mais ñun processus bi ñu suivre ba egg vers la révolution dëgg egguñu fa lolu nak inexpérience da koy wane euh, aussi di mener des combats aussi yoo xamanteni des fois fay brouillon da koy wane parce que tay qu'est-ce qui nous arrive aussi au Sénégal il faut ñu taxaw ñu def le round des combats que nous menons mais yàgg même pas quelques mois wala jege na at on parlait ñun ñep de petro on parlait de Alioune Sall gësam ko bañu ñu dindi ko CDC ba woo ko j'étais membre fondateur membre fondateur aar li bokk la je faisais partie de aar li bokk ma don ñew fi di bokk ci ñi kaas Wa léegi ce dossier là fan la toll ce dossier là fu mu mujje dossier Necotrans fan la mujjé? dossier ArcelorMittal fan la mujjé? non mais dossier par dossier en fait amuñu une organisation la forme biñuy biñuy bi war nañu toogaat ñu xam ñun luñuy ñuy lan la biiwu manam combat bi lan moy lan moy quintessence combat bi ak lan mo wara doon jeexitalam légui lan ngay gis moy la politique quotidienne c'est comme les réseaux sociaux Manam day ngay am euh, ordre du jour bo xam da ngay am tay par exemple lo xamni moy def buzz diggante huit heures ba midi midi dara fekkaat ko fa mu qu'est-ce que lan lañ wax présentement du bati plus wa mais deux semaines avant du woon Akili mais tay kan mo wax Akili mais faté nañ ko pourtant c'est un dossier bu am solo pour le Sénégal mais bati plus egsi na on oublie Akili bu bu manam dañ wara a sunu euh, forme xeex. 23 juin lim ñu wara jangal moy gis nga je veux dire spontanéité bi nii demee xol bi baax mais le Sénégal est trop sérieux pour que tous ces acquis yi ñuy am ni les koy au pied la dafa am ay bakkan yu nit man mi di wax ak yow dañ 17 jours ñu entendre dire. 16 jours may suis ci kañe yi commissariat bi nga central ma am ay retour parquet yu ma mënatul compter ñu mandat dépôt que me me man ak Thierno ak ñeneen ñi loolu lépp ñu doon xeex pour la démocratie au Sénégal suñu ay xarit ñàkk seen bakkan am booy yoo xamante ni Colobane dañ leen a torturer après tout ça lan la ñu am mooy assemblée boo xam ni député day taxaw fëgg dënnam ni ñu ee eh, man député Macky Sall la man seetaan naa seen euh, site bi matul une semaine Farba Ngom ni man député Macky Sall la loolu

ñun dañu war a tirer enseignement ci 23 juin au cas contraire tey wa PDS sax bu len neexee mën na ñoré. gis nañ ni 23 euh, juin boobu d'ailleurs sax ci walu feete bi ngay wax bon gis nañ benno bokk yaakaar ñom feete nañ parce que ñom aussi bon xeyna japp nañ ni euh, la le combat a été bien mené et qu'il a été aussi gagné mais. Euh, waruñu wax aussi pour man responsabilité des jeunes ak ñi nga xamante mi ngi fi woon aussi nekk fi toutes les forces vives de la nation di xeex bàyyi li nga xamante aussi moom moo di responsabilité au chef d'État def naa def naa aussi euh, le président Macky Sall aussi il a été présent ci combat bi mu ngi fi woon di xeex tey gis nañ aussi position bi nga xamante aussi mu ngi ci tey yàlla def na mu nekk président waaye est-ce que euh, jotul tey ñu xool euh, ci xayma moom part de responsabilité par rapport à 23 juin ni ko gars di concevoir pourtant part de responsabilité président laal limal bi ñu le président est l'ordonnateur de li am nii à l'Assemblée nationale Assemblée nationale symbole ci 23 juin parce que fa lañ taxaw ni yeen ñi nga xamante ni pencum ndaw réew mi yéen yéenay ndaw réew mi waaye nekkalatoo leen réew mi Ablaye wad ngeen nekkal dañuy foqati lañ leen joxone biñ ko foqatee ñañ fa duggal li olof naan daw daay tàbbi jëmb moo dal ñun maanaam dañ doon am lu ñuy moytu far dal ci piir nee la Macky Sall a fait de l'Assemblée nationale ak régime am foo xamante ni vote sans débat ñoom ñoo roi foo xamante le nombre de députés pour un groupe parlementaire pour isoler l'opposition de par nag ay menace, de par corruption de par ay guerre ko xamanteni da ngay taxaw député comme je te l'ai dit feug ni moi je suis un député du président de la république fo xamanteni le taux d'absentéisme c'est Mustapha Niass qui le dit le taux euh, d'absentéisme de l'Assemblée nationale est extraordinaire xam nga ni code pénal bu Sénégal biñu koy voté code pénal nous avons voté Sidiki Kaba ñëw boobu ministre de la justice le 12 mai sur 150 députés 35 ñoo Le code pénal bii biñ koy révisé wat. gis nga code pénal ni mu amee solo ñuy saraxu député yi même pour ñu à assemblée nationale ñu nekk ay député yoo xamante ni summi la, kiirlaayu seen de député pour jébbal la Macky mu dugal la kaso moo leen gën a am lu grave mooy élection moo taxoon car bloquant mais fofu la ñu voté parrainage bi nga xamni ni gogou kuy chef opposition Sénégal dañ la jël ni la rap ci kasso bi Macky Sall est le père de tous manam mom moy ki sabab loolu lépp ànd ceeg suñu papa suñu mam Moustapha Niass mi yoron xeer bi motax manila la la trahison de nos aînés. mais tay loolu yep def nañ constat bi euh, li nga xamante mom moy le combat bi ñu wara continuer dans cette dynamique tey euh, lan lañu war a tirer comme leçon par rapport à toute cette situation. waaw kañ mooy déjà de sortir de l'immédiateté xam lépp lu ñuy xeex lan mooy tàmbali ba lan moo war a doon jeexital ba. ak yan ak yi lañ ci war a am sécuriser ko bu fekkee tey dañu naan am nañ dam ci dara suba ñu am pire nous avons échoué waxna le légui pas mal de dossiers sur Petro-Tim bu Frank Timis toogee ba ni ah, manam fayu ñu deureum dërëm wuñu sax Alioune Sall kenn woowaatu ko sax moy on a échoué sur ce dossier ArcelorMittal ma Badi plus yi ngay dégg ni akili li yii dañ naan Sénégal dañ koy wax deux jours trois jours bàyyi légui nag la forme bi ñuy lutter ak ni ñuy mënee combat yi war a am suivi loolu lu ñu war a toog jàngatal la jeexital xam nan lañ koy doxale

nga wax euh, de manière assez ramassée un peu euh, hors contexte qui <laughs> Covid 23 juin mais de manière globale euh, jamono ji ak engagement bi nga la surtout en tant que jeune yow nekk ci parti Rewmi ban conception nga am ci l'engagement de la jeunesse par rapport à la politique actuellement. l'engagement de la jeunesse dama koy rafetlu parce que Abdoulaye de doon wax ni les milliards wala ressources naturelles bo mënti am man sama formation ou jeunesse wala la jeunesse de africaine moomu ko gënal buñ défé ci ñom liñu wara a def ci ñom ëlëk ñom ñoy jariñ Afrique té jeunes yi dañu wara mais ci lan lañuy engagé wu xam nga 23 juin les jeunes étaient engagés ils sont sortis mais lan lañu am au finish donc il faut jeunes yi aussi ñuy tok ñuy def jangatal ci combat yi ñuy mëne fi mu bëgg terminé terminer nag ñi ngi dund Covid tay ñu nekk ci pandémie bu metti pandémie bi le président de la République ni fay relever challenge bu président Rwanda Kagame def mu jubal ci ndox mi raxasu ni ni la bëgg ngeen di def je vous dis monsieur le président de la République présentement à Dakar surtout les gens n'ont pas d'eau mais nit ñi bu ñu amul ndox nan lañuy sété seetee nit ñi bu ñu amul ndox nan lañuy xéxé Covid 19 quand j'ai entendu le ministre hier mu wax dans une télévision de la place dama tiit mani Serigne Mbaye Thiam est-ce que limuy wax mi ngi koy xalaataat donc ñun tay dañ naan nit ñi yéen xeex leen jangoro bi te ndox mu nit ñi naan ndox mu nit ñi raxasoo sax amuñu ko donc le président première communication bi mu def. mooy jubal ci robine raxasu na xam ni Sénégal fi ñu toll nii amuñu sax ndox mu ñu naan bay raxasu jërëjëf.